ginnaaw nuyoo bi njàngat yin leen di faral di defal ci Aladji Malick TV tey jii dëkk bu sell bee nga xam ni moo nekk ci biir ndakaaru ci peggu géej gi nga xam ni loole su ngeen ko gisee seen xel mën naa dal ni xéewal la yoo xam ni moo tax boobee dëkk di yoof nekk ci li nga xam ni mooy peggu ndox mi muy am solo bu baax a baax ci diine ji nga xam ni mooy diine islaam baneen bi tamit mooy gis ngeen xam ni kilifa diine yi nga xam ni daanaka ñoo nekk foofee nga xam ni mooy yoof taxawaay bi nga xam ni am nan ko bu ngeen gisee lii rek seen xol dina sedd képp koo xam ni nit ku baax nga te it bëgg lu sell xam nga ni lii bu senegal gi yëpp meloon noonee mu dem bu baax a baax loolee tamit am taxawaay boo xam ni daanaka ñii di asset type nga xam ni daanaka ci ay immeuble la ñuy gëstu ak jàppale ndaw si di leen jàppale bu baax a baax ñoom ñee tamit daanaka taxawal nañ fa la nga xam ni mooy immeuble yoo xam ni yu mucc ayibla yu toll ah, ci li nga xam ni mooy juróom benn téeméeri million loolee nag boo amul sens ci gafaraka ak état bi lay génne waaye état boobee ñëpp ci bokk yam ku ñu defal war nañ laa defal ku ñu defalul it maanaam tooñ nan la ndax lépp ci biir Sénégal la kon bu amee noonee cant ak ngërëm moom mooy ñeel ndaw ñi nga xam ni am na taxawaay boo xam ne bu bees la ci biir dëkk bi taxawaay boobee ñi ngi koy gis bu baax a baax mu nekk taxawaay bu rafet boo xam ni gone yi jëmbat fulla ak fayda ak liggéey liggéey seen réew loolee leen ñor képp ku leen bëgg a xañ loolee. loolu muy am solo di taxawaay gu yees boo xam ni gone yi ñu ngi leen ciy ñaanal jàmm te it ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi dem fële ci appel bi nga xam ni moo nekk ca laayaan yi. yàlla defar leen sutura te ñu ñaanal réew mi jàmm ak salaam joo xam ni war naa baawaan ndax foofee suuf su sell la